wii wii na def ah ni jaay sama wii de barke bi man xaamal ak gis nga wii koor gi ku ko santaane woon ku dul yàlla suñu borom mën mbëkk faal ma ñaf lay mbëkk ba nga wàcc ah ni jaay ni jaay dóoral ni jaay fekk nit mu tëdd ma woor ba sonn rek nga xool ma rek nga ne ni da may mbëkk ah ni jaay yow dóoral wii waxuma lool de wii maanaam doon ni koor gi bu fekkente doomu aadama woo ko santaane oui waxuma loolu de maanaam doomu aadama bu fekkantoon moo ko santaane laa wax maanaam moom dina dina am problème ah nijaay nijaay kon man man ma am problème nijaay ah nijaay nijaay duggal ci man nijaay yow amoo fit gone caamen nga nijaay waa waa mboxu goxu mbaaj nga jërëjëf man goxu mbaaj laa tiitaroo barke yo mal xaamal ak kabar yow tuddal kër <laughs> yow bu fekkente yow am nga fit bu dee problème nga bëgg tuddal kër Samba Kane cawaare guy doq njëm si bu dee am nga fit tuddal foofu rek yow laalal foofu dara rek yow moo fit ah nijaay nijaay feet nijaay feet amul fii nijaay man damaa woor nijaay yow nijaay nijaay nit di woor nangam sangam woor yow xaaral ma dem bàyyi la sax ma nijaay nag ma ma yow nijaay est-ce que <laughs> waaw bu yeboo jërëjëf jërëjëf wóoruma ok Ndiaye ça va tonton Diop ça va yaa ngi ci jàmm alhamdulilah tonton Diop ma laaj xam nga lan laa lay laaj tonton Diop man damaa woor ba heure bii bi ma wóoree ba heure bi ma gént gént diglu ma rek ma gént ma génte xoolal gént daal di téye ab sete sete sete ngoos sete ngoos mooy sete yi jigéen ñi takk ma téye ko naa ko càq càq càq càq ba xaw doog daa wala dugg kombe comme ba yow yow yaa wiyee mais da dem yéen a yem barke bi mal xaamal man dama la laaj ngoos ba séddal na nga ko téye wala ci ngoos ba dama ko ngoos ba cité ngoos ba dama koo xooj ci mu ndox ma koy naan mu siit may naan loolu laa lay ku baax ku baax barke bi mal xaamal ak ba wari nga ma bul naan ndox nag. teel sa koor ngaa galeeg moom da ngaa gënt teel sa koor ba ba 19 mu yéen mu yéen. mu yéen damay doog nga naan teel sa koor ba dix-neuf heures jot kii yow Pape bu caga nga jërëjëf man ren yàlla daa dogal yàlla kese laa indi ci kër gi wasalaam yow tamit ren ren ceytaane kese nga indi cagay kese nga indi wasalaam